yàlla na kenn or jotulaa am péeku jëm kenn jotulaa am péeku fen fen jotulaa am féeku boyal sa bët ci fu neexul yàlla ndax dëj sa dëjaay fab sa bët teg ko ci alquran fab sa nopp di ko déglu boole ko sa koom dëgg yàlla yaakaaru na lool yàlla bu yàlla tas yaakaar góor gii di fexe lii moo xale lam yi yàlla na yàlla yokk doole di jaayi rasulillah amin seetuwaat leen nguur encore si woon nañ foofu moo tax Yusufa nag mu ngi bëgg a feeñu gaa yi nag mën a yéeg ndax alimtum xam ngeen ma faatum du Yusufa wala tàttal ko ngeen la ngeen defante woon ak Yusufa ci dóor ya ak aslaaj jaay ko wa aqihi ak rakkam jëppuma ji ngeen ko tëj is antum jaahiluun ne nañu lisaan ci arab mooy taalaw ba sëbët di di feeñ bokkul ak anam kooku lañ tuddee lisaan danañ koy faral di def lool juste la bi muy posé question bi mu ngi ko def mel ni ko masque gaa yëpp ngi tax ak alimtum ma faaltum bi yusuf wa aqi bi muy posé question bi avant gaa yi dindi ko mu dindi kaay buy posé question bi mu ngi muur ba bët yi feeñ mu ne leen al alimtum maa faaltum bi yusufa na ñorat kaala gi ne leen jàpp ñu ne ko ah la antu yusuf parfaitement ana yusuf wa aawa xaqi qad manna allahu alayna innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudiu ajra fàttaliku ngeen seen jëfanteeg seen frère bi ñuy wax Yuusufa ak rakkam jaar xas ca ngeen ko xos ñu ne koy dafa mel ni yow yi mii ñu gis ca kanam ba rafet gii su nuuru bakkan ba tànn gii sa jëbu yaa bii yaay Yuusufa mu ne waaw waaw amul benn beneen te maa Yuusuf affaire am na de kii géntoon jiin fàcc mooy sama rak moo bokk ndey ak baay waaye dafa fekk man yëppati ku mooy toog kon seen borom wa yusbir te muñ toog ku mu la toog bu boobaa fa inna laa laa yudii'u ajra ku jëm ba tooñ sa nawle te bu la tooñee nga muñ alaaji Mansour mu baax ma rahmatullahi alayhi ne na ku ñu tooñ nga muñ yàlla fay la fay la waaw yàlla fayul la ba noppi fay la
Haji Mansour nee na wa sabru wal hafu wal ihsaanu min siyamin tardat ilaha wa lil xayraati tugrika ومن أساء فسامه وزل أبدا من قاتل هابك بالقتل يرميك
هذا من أهتي فذكر وابتلي فسبر وظلم فاستغفر وسلم وسلم فخفر وظلم فاستغفر أولئك لهم اللمن وهم مهتدون ku ñu may nga sant ñu nattu la nga muñ ñu tooñ la nga jéggale nga juum tooñ jéggalu moo ne gaa yaa ngoog ku ñu may nga sant ñu nattu la nga muñ ñu tooñ la nga jéggale nga juum tooñ jéggalu ulaay ko loo mun la nga Youssouf a ngi dégluwoon ko gars yi rek man yëpp tëq wéyes bi fa anna laa laa yabayu ajral muhsinin Youssouf a wax lool gars yi ne ko waaye tontu xaaloon ñu ne ko dëgg dëgg tallaay ñu ngi giñ ci màggu yàlla ne laqad asraka tànnal na leen ngëneel laaw yàlla alilal ci suñu ak lu mun naqar naqar yow in ku naa la xaati in waaw ndax nag def nañu njuumte lu ñaaw mu bañ ñu rus mooy laa tasrib det yeddeel aleykum yeddeel laa tasriba det gàcce aleykum yeddeel alyawma li ko dale tey jii yàqul na baal laaw yàlla lakum yeneen waan xam raay bi isa bolla da leen di xamis yi ak sumbu bu ma haada fi la ñu dégg ni barkelu am na solo yaquba jooy na ba silma daw leen ngeen na baay yusufa feeñ na su ma mbubb mii nag naka raay ci kanam bu koy raay rek du doon jàccaan te rëy na ni ñu bu ñu yóbbuwuloon mbubbam it bu ko raayee ci ndigali yàlla doon jàccaan waaye yàlla day wone ne barkelu am na solo yéen bon la nga leen di xam yi si asoom bu bëri. gars yi départ ñu ngi ñibbi nag ñuy jëm ci góor gi yàqu ba. du moom waaye ba ñuy départ rek loolu góor gi ne ah man daal dafa mel ni xetal Yuusufa daf may xeeñ. duudu sàll. góor xetal Yuusufa moom may xëy foofu nag kilifa bi bokk na ci firi yoo xam ni yëgal naa suma bopp ne maa ko maa ko firee noonu waaye gisuma ko ci far bari na ci nag bari na ci pas-pas yoo xam ne ak soldu bi dina dinaa yëg ne ñii la ko saraay doon firi ñii la ko maam yi doon firi mais man xalaat naa ne daal jaare ko nii du yàq maana mi te mooy gën a rafet bu sàll kaay ci weti ca yaasin فلما جاء ولما فصلت العير am def leen loolu ba nga gisee gawar ga départ avant un kilomètre xaala la wax abuhum seen bàyyi ba ñuy wax yaquba ne ini man la ajudu maa ngi yëg fi ma toog riix yusufa xetab yusufa lawla an tufanniduuni te doxob ñetti fan la ñuy ne juróom ñetti fan lawla lawla am tu fan ni dooni boobu laa di firee lu lu néew ñu koy firee noonu ndax mooy firi su ma bañuloon ngeen fenloo ma dinaa ne xet ak Yusuf ak may xëy waaw waaw kañ man nag ma sansa ne su ma ragalul woon ngeen tudde ma ko naax dinaa ne xet ak Yusuf ak may xëy ma xam ne looloo gën a rafet ci bàyyi ak doom loolu antu fanni duni su ma ragalul woon ngeen fenloo ma kon nag nii la ay jidu riixa Yusuf ma ne loola antu fanni duni bu ma ragalul woon ngeen tudde ma ko naax kon dinaa leen inni la ay jidu riixa Yusuf ah waaw waaw boobu la de boobu de ma am na lu mu juróom juróom benn juróom juróom benn yoo xam ne kii la ay mu dem di assis xaale yi ñàkk luñ koy wax naan pallaay ñu ngi giñ ci yàlla ne innaka la fi dollaalika yaa ngi ca yaa ngi ca ca ca cofeel ga cofeel ga nga nekk woon ba néegu la xale bi dem du jóg ci yow mukk yaa ngi ci moom waaye bañ toogee ba ci ëllëg gan ñe ne dara indiwaale mbubb yi vraiment jaa baa nga xamee ne ak si ne albasiru aji dëggal jë alqaaha la dire mbubu ma alaawa ci kanami góor gu far tëdd mu dal di mujj ba mu dal di mujj ba siiran di njàccaan ci saar xaala mu ne naka mu alama aqul waxuma woon lakum ñeen leen indi ne ko man yaalamu xam naa mi ne laa ci alama laa taala mënulu ngi ne xale yi ruus ne ko yaa baanaa pap astafir baalu la naa ñeen ñu lunoo banaa sunu ñaaw tey fii gi naa ko naa xaati in xaal góor gi nag soo fa astaxfiru lakum rabbiya dinaa leen baalul yàlla innahu huwa xafuru rahim téere yaa ngi laaj naan yaquba lu mu ci doon yusufa lañ def affaire yi di yusufa lañ def affaire yi bil mubasirati maanaam carrément mais moom bi gars yi feeñee lu mu leen wax def ne laa tasriba lakum kii amul solo al yawma yaxfir laahu lakum kii di seen bàyyi ñu naan ko baal ñum naan dinaa leen baal dinaa leen ji lu mu ci doon sa astaxfiru ji lu mu ci doon ki ñu defoon mbir mi baale ci saasi yow doonu ci dara gannaaw xëy na sax parce que siin si sax mën naa firi xëy na xëy na daa leen baalul ñu ne ndekete yusufa yaquba bi wax gaa yi sa astaxfiru lakum rabbi da doon tëru heure ndekete doon tëru guddik aljuma ci heure ya mujj ndax óor na ko ne yàlla du ci delloo manda damanda waaye coxor taxuloo nag astafir lakum bi la yow la yusufa mën a baale mën naa baale lu ko ëpp ndax moo leen jur waaye nag da doon tëru dafa am samaanu ijaba am waxtu ijaba am mahalul ijaba dafa am heure yi nangu ñaan ak place yi nangu ñaan ak waxtu yi nangu ñaan njàccaar yi pire nag moom dañuy tëru ñu mel ni man nag buñ jógee députal ci àll bi rek députal mu députal muy suur yi rek lu histoire bu neex ngi ñëw maa ne waxoon naa leen ne xam naa lu ngeen xamul naka mu lii du mbubbam yusufa dëgg la de bàyyi baal lu falamma daxalu ala yusuf ñu ne ko nag papa préparé sa partage sama yaay nañ préparé bagage yi li ñu am ci giléem li ñu am ci nag jugur jugur rek moom ci ginnaaw Tamba bëgg ñibbi ci capital bi parce que seen papa léegi mooy chef d'état sa papa bu dee chef d'état kañ duudu dëgg yàlla nekk ci ñaay ba nag di béy war naa doy tax mu leen itu nii bi ahlikum aj naa ina tuuni ñëw am naa am naa fu mu leen loosi am naa repas jabar yi na ñëw doom yi ñëw fas yi na ñëw mbaam yi ñëw ñu préparé bagage bi nag léegi ñu ngi départ réception la boo xam ne malaaka yi juróom-ñaar asmaan yi juróom-ñaar seetaan si nañ ko ñu dëkk géej yëpp seetaan si nañ ko ñu dëkk suuf si yëpp seetaan si nañ ko jinne yi seetaan si nañ ko tey la yànqoo bay dajeeg doomam ja mu jooyoon ba silmaxaa juróom-ñaari at koo garab gi nit yi dañ ko fees tal ñu ragale ñu ron nag réception bi passé na crèche ñaari boor yëpp ñu ron ko mu dëju nag mu ngi gëj gis gos bi ba mu dee gos mu ngi ko nar a fekk tey ci fauteuil yi président mbaa yéen a ngi dégg gaa yi ñëw nañu dëgmal dëkk bi message bi ñëw poussière bi jóg te ba lay tëgg malaaka yëpp seetaan si alxuraan ne nag ba ñu agsee aawaa yi la yaa abaway mu daal di tàkku papaam ak yaayam ak yaay nee nañu nag du yaayam pire ndax yaayam a ngi dee ba rakk ji wasin santaan la mu accueillir leen mooy awa ne leen uduxuloo tabbi leen misra capital bi insha allahu aminina ànd ak xel mu dal maa ko moom wa rafaa abaway ala al arsh wa xaraloo sujada papa monté muy yéeg ñu daal di def lii ngeen tudde mbàkku réew mi ñu def ibna bi ibna bi nag mooy ñëpp rafandoo sujjóot xarooloo sujjóota mu daal di ne yaa abati pap xaaka suba bés bii taawilu ruyaa yaa moo firi sama gént ga min qablu ca bu yàgg dafa mos xat jaalaha mujj na mujjal gént gi rabbi soo borom xaqat ma du lu am waxat ahsana baax baaxe na bii ci man ci lan is axrajani ba mu ma génnee mi ne si ci kaso ba ak lan wa jaa mu ñibbi si bikum ci yéen minal bët wi ngeen jóge ci baani yi ba ak lan ak min ba di am na saqa ginnaaw ba nga xamee ne yàqoon na seytaanu seytaane bay nii sama diggante ba bay ni iyaqawati ak samay mbokk in rabbi borom bi latifun borom ak ñëwante la li man isaam ci lu ko soob innahu naka yàlla oo moom alimu xam ne mbindeef yi ak fi mu kuy dugal mbir mu ne fa mu war a dugal waa dara du moom yu gaa yi ne nañu ba du ba yusu kii du du sàll yaa ngi gis man ni ma sawar woon a gis borom xel mu rafet mu dul gëmmantu bu ñu toogee te mu sawar a déglu te bariwul soxla di gaaw di dem ba li ma xam a kës néew ma yebbi ko ko waaye ça ne peut pas pas grave personne ñii dañu am soxla di dem ñii di nelaw ñii tayale jàpp affaire bu rëy ngi fi Yusufa هذا تعال هذا تعبير رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي مثوايا اذ اخرجني من الزجن وجاء بكم من البد بي ومن بعد ان نسق الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء. ñu ne Youssouf a ngay répété passage mais am na lu mu sotti. maa ngi sant yàlla. li ma géntoon fukki biddéew ak benn di ma sujjootal ba tax ñu dóoru ma maa ngi sant yàlla yàlla def na ko dëgg maa ngi sant yàlla nag ba ma génnee ca kaso ba di sant yàlla bi mu leen ñibbisilee ci dëkk bi di sant yàlla bi seytaane yàq suñu diggante te yàlla defal ko ñu ne am na lu mu tëb ñu ne lu mu tëb ñu ne teen ba ñu ne lu tax tuddul teen ba nag ñaari point tax bañ mbokk yi rus su ko yeesalee rek gars yi dañuy rus ndax ñoo ko fa defoon daf ca génn rek doon jàmm kaso bi nag daf ci génn falu foo génn falu nag du niroo foo génn doon jàmm waaw waaw waaw aleykum salaam bismillah bismillah jóob jóob bi xam nga biir teen ba lañ ko for def ko jàmm jàmm nag neexatu la nekk ci su ko sabab boo xam ne ci nga jóge toog ci photo yi nag photo yi lamir maanaam photo yi président da xam naa nettali moo tax mu sotte bële nag tudd ñaar du noonu lu ngeen teg borom bi yow laay waxal xat at say tiri ci sa coobare dénk nga ma jox nga ma minal mulki lëf ci kiliftiif wa am lëmtan yi nga xamal ma it min taabil al adisi lëf ci firi gént yow laay waxal yow góor gu réy gi yow buur bu baax bi yow laa waxal yow mi nga xam ne fatiru samawaati yaa liggéey asamaan yow kenn waa aar da ngay yàlla ci suuf si yow kenn te fatir mooy def loo xam ne yaa ko jëkk a def du loo copier yaa ko fabriqué ante yow donc wali yaa yi méngoo suma fi dunya ci dum àddina wala axirata ak alaxira rek yàlla li ma lay ñaan bariwul mooy tawa fa ne yàlla nga ma rey muslimin ma di jullit bu alaxira wa alaqa ne yàlla ma kolone ma rangandoo bi saali na ci ñi am droit ram saali na mooy ñi am droit bàyyi leen kooku Touré Touré bisimilah Touré. waaye ñoom ñaar ñii kenn du li ma leen di dégg ko nag di ko dénk suma bopp ku ko ci man na ngay def lu baax lu baax a baax de billaahi ko fi dof dof lu bay jéem a def di bon bon lo di bon di bon di bon bon luy def lu bon ba malaakal mawti ñëw di nga xam ne def lu bon baax billahi waaw waaw nday ràbb day saan ko mën a reer la ndaw daan bu bu xale yi musaa wax yaa bon bokk bonaat taawu bonaat enu bonaat dugg ci mbaamam kër marta bone jub tukulóor yi ñu ne la ala bone dafa amoon kër gu ñëw marta bone lu ngeen teg góor gis góor gi gis na nabi la yàllay waxal nag tourné na biir doom bi bopp biir saab bi ba fii nit ñi lay wax ak ak ku dégg léegi da nga ne wëlbit biir doom bi na jàkk Moustapha ko saalika lii ma la nettali xam nga ne min anbaayil xay bi du loo fekke woon déedéet nu ihi maa yeesal nettali gi iligi ci sama xam nga ne maa kunta nekku la woon la day im keroog ba ñuy sànni bàyyi ca tax ma isaaj ma woo ba ñu d'accord am roon seen mbir nekku la fa woon te boobu ñoom yëm këruuna dafa fekk rek lii waroon naa tax nit ñi gëm waaye ndeysaan wa maa akasaru naas yi déet li ëpp ci waa màkk walaw aas fa doonte xër nga sax bi moomee ne ñuy gëm lu du dégg nga jumli ji wa ma tasaluma alayhi min ajrin huwa min aj laajuma leen alayhi ci jotal alquran min aj ci pay ci yoor déedéet in huwa déet alquran bii illa dikru ndarek waar la lil alamina ñeen bi nit waa màkkaa ngi bu ñu xëyee di di kon di di wëtti ñu ngi romb taax yu daanu yoo xam ne maa leen daaneel rey seen wax bu ñuy gont di ñibbi si dañu romb gent yoo xam ne ñëkk dëkk woon maa leen rey wa këyi leen ak a bari min ëyetin ci preuve yoo xam ne mu ngi wone doole yàlla fi samawaati ci asmaan juróom-ñaar wala de ak suuf juróom-ñaar nga xam ne gaa yooyu yëmur ruuna danañu traversé alayha ca kéemaan yooyu suba ak ngoon waaye ak taxu taxul tax ñu taxul ñu gëm wowum te ñoom mooru doonu ñuy dumooyu dumooyu anhaar ca preuve waaw waaw gent boo xam ne gent bu xumbale woon nga romb ko mun a nem kenn nekkati ña fa nekkoon ñett maa leen roñ man kenn yóbbu leen ci benn barab te duñu dellu si ñu ngi nii bu ñuy xëy romb gent samuuda taati màkk la nekk bu ñuy xëy bu ñu gontee di ñibbi si romb gent suhaybu xam nañu ne ñu def romb ñu gent lóoti xam nañu ne ma leen defoon romb nañu gent firawna xam nañu ne ma leen defoon ba kay inin ak a bari min ayatin ciy preuve yoo xam ne mu ngi wone sama doole yamurruuna alayha ñu ngi dëkk di jaabante di ko romb te wowum anha muridun man gàtt xel walaay alquran ngoog di duudu nu dem aha kay wa ma yuminu dogaluma gëm akasiruum li ëpp ci ñoom billaahi ci buur bi di kenn dogaluma ci ñoom ilaa moom dara ñoom musrikoona way bokkaale la ñu yàlla xërëm yi wala lawsaan yi maa ngi laaj nag bubu ma ne en doot tooñ yàlla ba ngoon jant so nga ñàkk looy def reer duggub néeg bu xat boobu yemu la ca nga ne lamp bi kawe yemu la ca nga ne bunt bi kawe tëj yemu la ca nga sàngoo mbàjje te indoom tooñ mag moo xam ne loxoom jotu ne fu ne kooku kooku kooku kooku dalul xel am ngand kañ mu toll noonu ko koy indoo tooñ ci ëtt bi nga war a fanaan fànn lu yëngu nga fëx dégg nga daal xuraan nag mu ne afa aminoo dal na xel antatiyum xëy dal ci seen kaw xasiyatun ay duma min asabillahi ci mbugali yàlla awtatiyum wala dikk leen saatu affaire bi fiñ ci baxtatan ci betteel dal na seen xel te woowu ñoom lay suroon a xamuñu kañ lay ñëw mën naa am li des ci bëccëg bi la mën naa am li des ci at mi la wala weer bi ey Moustapha yow laay wax wax leen ne leen hasihi fii ma teg sama tànk sabili mooy sama sariya du maa ngi propagande ñëpp di laay jëm ci yàlla ala basitul ànd ak xam bu wóor nag ana man wa man ittabi'ani ak képp ku ma topp ne nu ngi ci yoon wu juba jub subaa naa tudd ma sell ak yàlla wa maa naa déet man mukk minal musrikina lu tax ñu naan bu ma doon yónni damay yónni malaaka man mosuma yónni malaaka wa ma arsalnaa mosuma yónni min qablika lu jiitu ma yónni la illaa rijaalan daray góor ni yow yoo yoo xam ne dinaa wax yu ilayhim jëm ci ñoom Moussa lu mu doonoon nee ma ni waaw kay Zakaria nag Yaquba ko mosuma yónni benn benn réew mosuma fa yónni benn malaaka loo teg ok mosuma yónni lu dul nit nit laa daan yónni min ahlil xuree ci waa capital bu ne du noonu su ngeen ko dee afalam yi siro voyagé wu leen fi la di ci suuf si boole koog laaj ak xool ba xam fa yón suroo ngeen seet te laaj kay fa kaana naka nekkoon aqibatu la si ne mujj ñu nga xam ne min qabli ñoo fi jiitu woon te yor seen jikko ji dañu mujj woon fudd seen digg war a daaru kër ga àxirati ga ñuy mujjee sañ ci te du gent xëy bi moo gën fuuf waaye du pour ñëpp li la si na taxaw loolu yaa ngi gis afala yaaqiluuna wala afala taaqiluuna musuma dañ di yónni xataa joojo ngi aju ci wa ma arsalna min rasulin jooju musuma dañ di yónni bu ma yónnee ñu indi jàmm ata ita say xasa bennaagu rusulu ndaw yeneen ñii ñu ñu yónni duñ ñu déggal wasan noom mu óor leen ne am na moom nako ñoom xat ku juboo fenloo nañu suñu àggee foofa nag jaawum daal di dikk na suba naa suma wala bu ma ne képp song nag lu mu xat-xat fanu na ji dinaa rocc man na saaw nunu soob ñu raw mucc waaye maa ngi leen di yëgal ne lu yàgg-yàgg wala yuruddu mënu la delloo ginnaaw baxsanaa sunu leeral gu ñu xas yëkkati ba du daal anil anil xaw mi ci digg ginnaaw bi gaa yi nga xam ne mu jërimi na ñoomatul kenn mënu ko sunu leeral gu xas jóg kenn mënatu ko dafa ndar ba du daal ci digg ginnaaw yi yëf alaaji ga yaa ngi gis laxat kaana doy na sëkk fi qasasihim ci nettali bi la nettali yonent yi doy na sëkk du du ibratun ak waaru waaye nag du doon dof li ulil albaab wa ma kaana nekkul alquran ji addisa di lu ñu fabriqué yuftale goo xam dañ ko duur lu mu doon tasdiqa li si bayna yadi dëggal téere yi ko fi jiite rek ak lan wa tafsil ak farafànce dëgg ak seen li kulli seen ci lépp lëf lu ngeen aajo ak lan wa uddan gindi ñi wéer ak lan wa rahmatun jur yërmande waaye jur yërmande nag li xaw mi ñeel ñit yoomi noonu ñoo xam ne dëggal nañu ah mooy firi dëmm dëmm nag ne nañu jëmbi malaaka la bu tudd dëmm ñu ne déedéet xeer la wu buur wu buur yàlla def briquet tekk ci loxo ki commandement asamaan yi juróom-ñaar mu di ko oto seytaan rax bi ci boppam rax dina dal jullit dina dal yéef dina dal waliyu dina dal dina dal saay-saay yàlla ne na sama xeer la woo xam ne maa ko moom jàmm bu ma neex ma dóor ko lépp cër denu nag du dal nit te jëw ci nit dafa ànd ak courant boo xam ne bu fekkee sa nokki di génn da koy jël yóbbu su fekkee nag sa nokki di dugg si mu balaa moom daa gis ku boot dañu ñëw rëy liir ba bàyyi fa yaay ja wala mu rëy yaay ja bàyyi fa liir ba parce que dafa fekk kii nokkeem di génn kii nokkeem di dugg buy génn nag dooleem jooju la koy fabaare kat téere yi d'accord nañ ne nii may wax ak yéen benn benn tubb ji génn te sew mooy génn ci gémmiñ gi malaaka mi commandé taw bi ci bu naan naxwa Dakar taw leen ko te Dakar ba mu yàgg mu ne Tamba ba mu yàgg mu ne Abidjan yooyu génn mooy dënn yooyu gis nga ñaare balaa ne sa tët jëkk ko def mu nga karwaas boo xam ne ci lay commandé côté bi bu waxee ne Dakar kot mën a nii karwaas boobu mooy melax bi bëgg yóbbu ba ci nit ñëpp ne fëy Dakar asamaan na sa dina dal nag ku ne waaye am na baat yoo xam ne ku koy wax danu du la dal du dal foo nekk yusabbihu rahmatu bi amdi wal malaika min xiffat yusabbihu rahmatu bi amdi wal malaika min xiffat jamono buy dënnu tararara booyee boo di ko jàng du la dal du dal ci sa wet du dal ku la jege am na yu tubaab yi ut pour mu di ko fil paratonel ratonel yooyu bee ko ëpp doole bu sa